moo war a saytu xaalisu assemblée nationale bi ndax ñun niñ koy dépensé ci biir assemblée nationale jaar na yoon ndax fi mu war a dugg mi ngi fa ndax li nga xam ne wax nañ ne dugg na fii noonu la demee yooyu yëpp nekk ay jafe-jafe yoo xam ne ñun dañ koy am. waaye fan yii ñu génn da ngeen gis ne dafa am benn euh, comi euh, comité ad boo xam ne dañ ko taxawal te invité ci député yi assemble nationale pour ñu ñëw saytu maanaam mbirum littoral bi. lépp loo xam ne am na fa mu nekk loo xam ne teguwul ci yoon si ni ñu joxee suuf yi nga xam ne dafa nekk si li ñuy wax DPM muy domaine public maritime waaye bi ñu demee si réunion de bureau dafa nekk loo xam ne président assemblée nationale ak le bureau parce que ñoom ñoo fay majoritaire dañu refuser participation parlementaire si biir comité ad boobu ñu jàpp ne loolu du yoon te rafetul parce que bu fekkee ne ñun la ñu tànn nañu dem leen assemblée nationale teewal ñu fa voté leen ñu ay loi proposé leen ñu ay waaye saytu leen ndax gouvernement bi mi ngi def liggéey bi nu mu waree ak xaalis bi ñu ko dénk ndax mi ngi koy def fi mu ko war a def jaadu na lu toll ni suñu suuf di suñu moomeel ni ñu koy defee si suñu alal di ko def si loi yi fépp fu ñu koy waxee yaakaar naa ne député moo fa war a jiitu ba tax na nag gis ngeen ñu ñun saa ñu tëjalee buntu ñu jaar si palanteer ndax on est toujours la prêt à se pour li nga xam ne mooy askan wi ñu yebal gis ngeen ne dinañu am ay initiative fii ay ki fan di ngeen gis dinañu dem parce que yoon aayewuñ ko ñu dem fépp foo xam ne dafa am litige du yem rek ci domaine public maritime bi ñun fas yéene nañ dem fa ñun suñu groupe parlementaire Yewwi Askan Wi dem fa saytu indi li nga xam ne moom mooy ay information teg ko jox ko waa askan wi waaye bu jaree ñu interpeller le gouvernement dinañ ko def ndax loolu mooy suñu suñu suñu liggéey léegi dañuy dem ci euh, li nga xam ne moom la ñuy wax débat d'orientation muy li nga xam ne saa yi ñuy tëj li nga xam ne mooy session bi parce que session bi mu ngi ubbi octobre di tëj join dafa am benn këyit boo xam ne dañu koy indil te moo ñuy jox lu ndaw si li nga xam ne ñoom fa la jëm bu ñu ñëwee octobre li ñuy wax débat d'orientation kii loi de finance bala ñu koy indi lii la ñuy indil ñu am li tubaab di wax benn aperçu waaye ñu am xalaat mën a indi suñu xalaat si li nga xam ne moom la ñu war a indil loolu la ñu faral di loolu nag vendredi Euh, réunion de bureau bi ñu mujj am président ak waa bureau bi jàpp nañ ne samedi le 29 juin si lañ koy def te loolu sax moo waral tey ñu daje woon parce que ñun waa yeewi askan wi du rek dañuy woo journaliste yi wax leen li ñu def waaye saa bu ñu amee séance bu ko jaree dañuy def formation parce que formation si liggéey la bokk dinañu ñëw indi ay experts ñu saytu analyser waxtaan si li ñu indil ñu soog a dem fële ci assemblée nationale moo tax ngeen fekk ñu tey fii ñu toog te si budget boobu lenn rek lañ leen si wax loo xam ne remarqué nañ ko te après di ngeen ñu suivre peut-être le samedi mooy ne budget bi euh, correction bi ñu gis ne 7000 milliards bi ñu waxoon ak liñ si indi au moins bi yoon am na un peu plus de 5000 euh, milliards boo xam ne ñun indi nañu ko te ñu gëm ne boobu moo am sincérité mais buñ demee ba samedi. di ngeen gis yeneen yoo xam ne mooy résultat analyse yi nga xam ne moom nañ ko def si document bi nga xam lañ ko indi maintenant dafa am benn coow lu ñuy wax euh, fan yi lu ci bari si débat d'orientation budgétaire bi débat d'orientation budgétaire boobu ñuy wax noonu euh, déclaration de politique général baal leen ma muy li nga xam ne bu ñu njiitu jëwriñ yi buñ ko tabee day faral di ñëw ci assemblée nationale wax les grandes lignes maanaam si tënk fi nga xam ne foofu la jëmax li nga xam ne mooy gouvernement am loolu nag coow li bari na ci waaye ñun si règlement intérieur bi la ñu jëm parce que ñun lépp lu ñuy def dañ koy tënk si li nga xam ne mooy ay loi mbokk yi nañu fàttaliku tuuti si ginnaaw en 2022 ñun bi ñu installé dañu indil réglement intérieur bi muy lii parce que ñun lii mooy suñu cahier de bord lii moom la ñuy yendoo moom la lii avant ñuy tëdd parce que lépp loo xam ne moom la ñuy liggéey ci assemblée nationale fii la ne léegi lan la ñu remarqué mooy en 2022 bii la ñu indil muy réglement intérieur édition juillet 2021 waaye lan la ñu gis mooy biñ ko xoolee dañu gis ne réglement intérieur bi dafa faux et pourquoi ñu jàpp ne réglement intérieur bu faux la et dañ ko falsifié maanaam dañ si dëxëñ loo xam ne jaarul fa mu war a jaar pour dugg si li nga xam ne mooy réglement intérieur bi te ñun député ñun dañuy proposer ay loi ñun député dañuy voté loi ñun député dañuy saytu sax loi yooyu ndax ñu ngi ko teg ci yoon ak gouvernement bi ni muy doxalee kon jaadu na bu ñu indilee loo xam ne teguwul ci yoon ñun ñoo war a njëkk a taxaw ne lii mënuñu cee liggéey parce que nous devons être un exemple ñun dañu war a nekk ay royuwaay ci wàllu respecter li nga xam ne ay doxalin la ba tax na bi ñu gisee loolu am na suñu benn collègue di le président Mamadou Lamine Diallo le 11 novembre 2022 dafa bind bataaxal yónnee ko kii di le président de l'Assemblée nationale lan la wax le président de l'Assemblée nationale dafa ne ko lii nga xam ne mooy téere bii di règlement intérieur ngeen jox ñu ko tey si suñu bësu installation muy le 12 septembre 2022 nekkul bu baax bi xool nañ ko saytu nañ ko toppul li nga xam ne moom mooy euh, loi bi nga xam ne dañ ko voté en deux mille 2019 lépp nekku ci walla am na lu ci manqué en tout cas nekkul li nga xam ne dëppoo nax ni ñu voté woon loi bi mu ne ko nag maa ngi lay ñaan nga retiré ko boo ko retiré dindi ko ngeen fexe indil ñu bu baax bi ndax noonu la liggéey bi war a doxee lan la ko tontu nee na ko jot naa sa bataaxal te bu soobee yàlla je le moom moo ko wax ne jël naa at document bi te dinañ ko traité ni mu waree selon les disposition du règlement intérieur maanaam li règlement intérieur bi wax noonu lañ koy doxalee ba ngeen mën a am document bu baax boobu ba tey faras ñaari at yamuñu ci de l'honorable député gii Marius Sagna dafa bind ki nga xam ne moom mooy ndeyu mbile gi di le premier ministre Amadou Ba de l'époque ne ko règlement intérieur bii dañu yor warulaa mën a accueillir ci assemblée nationale ndax ginnaaw luwaal bi bi ñu ko voté ci constitution bi dañu a ñëw ci assemblée nationale parce que moom mooy définir modalité yi yi nga xam ne noonu la ñuy accueillir ki nga xam ne moom mooy le premier ministre. waaye loolu yëpp rien n'a été defuñu dara ba tax na tey fii ñu toll nii suñu taxawaay démb bàyyi démb ci doxal yoon fa la ñu taxaw ba tey moo tax jàpp nañu ne règlement intérieur bii mënuñu si recevoir un premier ministre ku mu doon fële au niveau de l' assemblée nationale. léegi fi ñu toll nii nag mooy dañu jàpp ne déclaration de politique générale bi modalité yi xam ne ñoo ko régime maanaam tënk ni ñu koy doxalee. figuré wul si suñu règlement intérieur ndax lépp lu jaarul yoon ñun dañ ko jàpp comme inexistant maanaam même bu ngeen ko ubbi woon tey gis ko fi jàppale ne dañ ko si insérer de manière frauduleuse et que faux usage de faux la ñun doxuñu ci defuñu ko moo tax li ñu waxoon daaw le premier ministre Amadou Ba bind leen président assemblée nationale tey taxawaay boobu la ñu nekk. kon mbokk yi dañ leen di wax ne ñun nous sommes des députés du peuple constitution bi def na li mu war a def ndax bi ñu bëggee indi premier ministre voté nañ ko waaye règle assemblée nationale ñoom ñoo deful seen liggéey pour indil ñu ko ndax ñu mën tënku si li nga xam ne mooy dëgg ci dëgg rek la ñuy liggéey. kon nag fii ñu toll nii mbokk yi foofu la mbir mi toll na ko ñëpp yëg ne règlement intérieur bi bu jaaroon yoon ñu ñëw et que tey bés buñ ko defaraatee bu ñu wooyee mu jaar ci anam yu mu war a jaar ñu ñëw def suñu liggéey en tant que représentant du peuple. kon nag si tënk si mujjantal bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, ñu di leen di jox dig daje ca assemblée nationale le samedi incha allah ngeen suivre suñu kii. jërëjëf Excellent. Félicitations. Merci. Merci.